bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi waxasin axlaaqana bil xilmi wasaxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina rahmatika yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa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 ñoo ngi nuyu soppe Al Misbah yëpp di leen ndokkeelaat ci bis bu màgg bi di bisu àjjuma ñaan borom bi subxanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu ci bis bi waaye defal ñu jéggalu bàkkaar ñu ngi nuyu imaam yi nga xamante ne ñu ngi waajal seeni xutba di nuyu ñi nga xamante ne ñooy taxawu jàkka yi te àjjuma jot ñu teel a ñëw yeesalaat jàkka yi moo xam ñi nga xam ne dañuy bale la moo xam ñi nga xam ne dañuy teel a ñëw di lali basang moo xam ñi nga xam ne dañuy waajal ay jàppukaay ala kulli xaal am na ci jullit ñi ñoo xamante ne taxawaay yooyu la am ci bis yu tedd yooyu di bisu àjjuma yal na yàlla fay leen fay itam ñi nga xam ne ñooy dugal seenu ñàq ci jàkke yi ndax loolu it ci barab bi defukaay yu baax yi la am na ñoo xamante ne danañ warlul ay juma di fay facture ndox ya am ñoo xam ne ña ngay warlul ay juma di fay facture courant ya di ko def muy ak jaamu yàlla benn mu ñeel leen ñoom wala ñu yéene ko seen ay woy jiitu yal na yàlla nangul leen yal na yàlla fay leen ndax léeg-léeg nga dem ci jumaa julli ba noppi imaam ba di yalwaanal facture ba wala ñu yalwaanal liggéeyu jàkka ji te am na koo xamante ne yàlla mën a woon na ko taw feexuk ca saa soosa moom mu man koo def waaye léeg-léeg nag yu baree bari dox digganteem ak yooya waaye ñi yàlla taw féexal bañ gaawantu ci dab dabaatal wut tiyaaba yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal na yàlla defal leen taw féex léeg ñu am yuñ ñu ci gaaral fii moo xam yu jëm ci facture la wala léeg yu jëm ci àggali liggéeyu juma wala jafe-jafe yi nga xam ne ala xaal jullit yi ñu ngi koy jànkonteel bala maa ñëw ci waxtaan wi nga xam ne moom laa bëgg a indi tey jii ci àjjuma ji ndax weeru gàmm wiñ nekk ma waxtaan wi rek ci wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ci suñu sëriñ sëriñ abdurahman mbakke moom sëriñ abdul xudus nekkoon foofu ci daarul moxti nga xamante ne dafa wuy ji boroomam nga xam ne moom ginnaaw bi ma waxee nii ma ko waxee nga xam ne kon xam nga fi mu bokk waaye taxawaayam ci diine ji doy na sëkk nga xam ne mënoon nañ koo jagleel ay waxtaani waxtaan yu baree baree bari te liñ mën a wax ci moom du jeex ndax doonoon boroom xam-xam waaye boroom xam-xam boo xam ne da doon jëfe ab xam-xamam da doon jëfe ab xam bokk na ci ay taxawaayam ñu baree bari buñ ko masaana bëgg yaare bu koo gis boo ko xaaree ci jàkka ja dana la fa fekk loolu nag defe naa taxawaayu nitu diine li ko ci gën a rëy bariwut ndax lool moom mooy tagg wi doon tagg maamam maam Thierno mooy tagg wi nga xam ne moom lañ doon waxal Serigne Touba nga xamante ne lu jamono masa xat-xat bu nodd gi daanoo nga seen leen ñu waaxu jëm ci jullikaay ba Serigne Abdourahman mi bu masaan di taw wala muy naaj wala mu sedd waxtu wu nekk rek ca jàkk ji la koy jullee si ca mbooloo ma waaye nag oyof lool dëddu àdduna lool nga xam ne boo masaana jullee ndoog moom suba waxtu wi may waxtaan bu noppee fa mu toogoon fa lay toog jublu xibla nga xam ne yow sax dana la mujj wàllaale ay ñaan ak ay awraat ci waxtu woowu ba ba jant bi di fenk mu door a ñaan ña ñëw ngir sàkku ndimbal mu dimbali leen ñay sàkku ñaan mu ñaanal leen door a duggaat ci biir liggéeyal xam-xam liggéey bu baree baree bari moom sëñ Abdourahman bari na téere xam-xam yoo xam ne téere yëpp tekki na ko ci wolof téere yi ñu jàng ci réew mi di ko jàng ci daara yi la ko tàmbalee ci euh, laxdariyu ba ba ngay àgg ci xalil al awal ak saani yëpp tekki na ko ci làkku wolof nga dem ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale naxwu noonu nga dem ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale luxa noonu nga dem ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale mboolem xam-xami diine yi Serigne Abdourahman tekki na ko ay jamono ci ay band lañ ko daan def boo masaana dem ñu sottil la boo masaana dem ñu sottil la jamono jooju fa daan eh, gën a teel a dem mu dem ba mu yàgg ñu di ko sotti ci ay seede boo demee ñu jox la nga yóbbu nga xam ne boo ñëwee nuyu ko rek ba ci jamonoom yu mujj li muy njëkk a def mooy jox la CD bi mujjee defar te du la ci laaj dara nag waaye dala koy jox. muy bi bi nga xamante ne téere yi mujj defar yëpp a ngi ci daal di lay door a ñaanal nga xamante ne loolu taxawaayu yaatal xam-xam la woon biñ demee ba CD kiyatut ñu koy def ci ay clé be léegi mi ngi ci biir groupe WhatsApp yi ak ci Instagram yi ak seen YouTube yi loolu nekk liggéey bu rëy rëy boo xam ne liggéey na ko liggéeyal na ko xam-xam ndeysaan geneen kàggoo ngooguti geneen ndàmbal xam-xam a ngoog goo xamante ne wonati nañu ginnaaw yal na ko yàlla fay taxawaayam yu rafet yooyu mu daan taxaw daan ko taxaw ci di dimbali ña nga xam ne moom la dëkkal jot naa ci seede yu baree baree bari yoo xamante ne amut ku mas a tawat dem ci moom lu dul ne taxawu na la ci sam paj ci wàllu ordonnance ci wàllu jox nit ñi ay dundu ak yu baree bari ndax loolu daa bokkoon ci ñi nga xam ne léeg-léeg nit dana génnee asakaam dem jox ko ko ne ko joxeel ma ko waaye nag ñi nekk ak moom ñëpp xam nañ ko ci nit koo xamante ne waajalut boppam dara lu dul lépp lu ñëw rek mu delloo ko ci jaami yàlla yi dëddu woon àdduna lool ba ci ak col dëddu woon àdduna lool ba ci ay waxam dëddu woon àdduna lool ba ci aw melokaanam boo gisee jëmm ji soxlawut ñu di lay wax ne la mooy nangam ak mooy nangam da ngay xam ni kii am na feneen fu mu teg bëtam fudut fii ndax yiñ teg suñ bët ba di ci ngër-ngëri jàpp ne mënta ñàkk moom yooyu ëppale na ko ab gisam dama koy waxe noonu ba ñi ko jotut woon a xam am luñ ci xam mu jaare suñ làmmiñ ñu barkeeloo ko ci eh, boroom xam-xam boo xamante ne daana na taxawu nit ñi sëriñ Abdourahman kenn mësu koo yëgal ab lu dul ne dana ñëw ca dana ñëw ca ca armeel ya loolu ña dëkk daarul moxti ñëpp ak ñi nekkoon ak moom ñëpp seede nañ ko bu dee koo xam ne da ca amub cër buñ ko ca jox mu war koo taxawu moo koy taxawul boppam nañ ma baal nga xam ne du woon sëriñ boo xam ne day ñëw yem ca jullee ga wàññeeku ñibbi waaye day ñëw ca jullee ga ànd dem ca xabru ya du doon koo xam ne it danaan rek damaa mënta ñàkk dem ca rob ba moo tax may dem waaye léeg sax day am ñu koy batale seen bopp am ñoo xam ne dañ koy yegal ne ko di wàcce di wàññeekoo na fi bu dee ñu ko batale seen bopp ngir mu taxawu leen moo leen di taxawu ba dugal leen ci seen kër gu mujj ñaanal leen door a ñibbisi su fekkee ñi nga xam ne nag dañ ko ko yëgal nga xam ne ñeneen a koy taxaw bu ñëwee danañ ko lalal ca gannaaw mu toog waaye nag dana ñëw ba ci armeel ya ànd ak ña muy àndal ñu ñaan mu joxe aajo lool nangu faa yàgg lool nangoo wétali kooka lool ci ñaanal ko ak taxawu ko loolu nag e, ci jëf yu baax yi la bokk ci jëf yu yi la bokk xam-xam e, liggéeyal na ko jàngal nañu baree bari ñoo xam ne seen bët mësta tegu ci moom am nañu jàngoon ba noppi dégluwaat ay waxtaanam loolu def ci ñoom yokkute ñoo ngi koy jaale xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi di ko jaale bu baax itam euh, Serigne Bass Anta Niang mi nga xam ne mooy kilifaam di xalifa maam Thierno Birahim di ko jaale Serigne Modou Kara Abdul Khoudous mi nga xam ne mooy magam ñu bokk way jur muy ab xalifaam di ko jaale Serigne Basiru Abdul Khoudous ak mboolem njabootu maam nu gépp di ko jaale suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Abdou mbake moom Baye Cheikh xadi yal na yàlla yokk yërmande moom sëriñ Abdourahman waaye yóbbu ko ca keppaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dajeeg borom xam-xam yi nga xam ne doon nañ liggéeyal euh, lislaam doon nañ liggéeyal xam-xam yàlla mën na ko yàlla na ko def maa ngi jégalu bu baax waaye loolu moom dama ko doon laytaay la jotaay bi. dogon ko nag ni mu demee sax mën naa cee jeexal takk émission bi ndax bari na luñ mën a wax ci moom ndax am nañu ay jaar-jaar yu baree bari waaye loolu borom bi subxanahu wa taala seede na ko yal ko yàlla fay yal ko yàlla fay yaatalam ci xam-xam yàlla fay ko ci njàngale yàlla fay ko ci taxawaay mbokk yi weer wi ñu nekk mooy weeru gàmm bisu tey bi nekk bisu ajjuma ci weer wu tedd wi nga xamante ne ci la. yonent bi alayhi salaatu wa salaam feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon koo xam ne dañ koo bëgg doon koo xam ne dañ koo war a bëgg dañ koo war a bëgg dañ koo war a bëgg ndax moom dafa bëgglu dafa bëgglu wax nañ ne benn sàmm ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko laaj ne ko kañ la yowmal xiyaam matta saa kañ la bis penc kañ la bis penc loolu la waa ji doon laaj kañ la bis penc moom léeg-léeg bu nit di laaj naan waaw bi sàngam gàmm gi moom kañ la day tegtale ne moom xanaa daa bëgg a gàmm ji wala am na lu muy préparé ci gàmm bu nit naan waaw 31 décembre de xanaa soreetut daa am moom lu mu cey waajal léeg-léeg nit buy laaj ab bis war naa am lu ko yitteel ca bis ba ba tax mu di ko laaj waaye bis bu yoonam nekkut waajalu ca dara léeg-léeg du ko laaj day jékki-jékki rek ñu ne suba la mu ne lii moom gaaw na di waaye lu nit di waajal lay laaj kañ la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko ne ko loo ko waajale yonent bi néewu ko néewu ko yowmal xiyaam dat sàngam la néewu ko xawma kañ la waaye da koo delloo ab laaj mooy laajub loo ko waajale yowmal xiyaam moom eh, léeg-léeg nit ki soxlawul muy laaj kañ la lim soxlaa yittewoo mooy moom lan lay waajale yowmal xiyaam ndax gëm ne bis boobu dana ñëw bu ko xasee ba gëm ña faatu ñëpp départ jëm fa te mu ko ne moom it dana faatu ji jëm fa kon li war a nekk taxawaayam mooy waajal ko mooy waajal ko lan nga koy waajale loolu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaje laaj waaji waaji ne ko man de lenn dong laa ko waajale mooy bëgg yàlla akub yonentam allahu akbar ne ko yowmal xiyaam bu jamoon man dey yaakaaruma ne sama julli yi mën na maa tax a jàll yaakaaruma ne sama koor yi mën na maa tax a jàll yaakaaruma ne jëf naa jëf yu ma mën a tax a jàll waaye daal wóor na ma ne sama xol bi moom yàlla laa bëgg ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu daal laa ko waajale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko anta mahaman ahbabta ne ko kenn ku nekk ëllëg yowmal xiyaam kam bëggoon lay àndal kenn ku nekk kam bëggoon ka nga bëgg yéen ñaaray ànd <laughs> mbokk yi ku yebu xool xool ci li ngay ki ngay bëgg kan la ndax bëgg mënta ñàkk bëgg mënta ñàkk nit moom faaw mu am kum bëgg ba jeex ca faaw mu am kum bëgg ba jeex ca waaye xool moom neutre rek yam benn palace léeg-léeg yombut am na koo xam ne déglu alxuraan a koy jooyloo am na koo xam ne déglu leneen ngir ma bañ a tudd rek xeet yooyu euh, moo koy jooyloo ca lay jeexal waxtoom yépp am na koo xam ne toog déglu ñuy waxtaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waxtaane diine yi moo ko gënal lu mën a am am na koo xam ne déglu leneen loolaa koy loolaa ko neex noonu la xooli doomu aadama yi mel waaye góorgóorlu gi nag day dimbali nit ci mu tànn bu baax li muy bëgg waaye xoolal waa ji bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la waajale foofa ndeysaan Seex Sidaaji Maalik radiyallahu anhu ne woon na amul jenn jëf ju ma yaakaar yowmal yowmal xiyaam lu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw Cheikh Sidaaj Malik radiallahu anhu niñ ko xamee ci ragal yàlla xamee ko noonu ci maandu xamee ko noonu ci bëgg xam-xam ko noonu ci jàngale waaye nee na walaysa lii amalun alxaaka yaa amali siwal mahabbati wa taxdimi wa zalali nee daal ëllëg yow ma la xiyaam jëf ju fa yaakaar lu dul rek bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bëgg moom farata la waaye bëgg yonent bi alayhi salaatu wa mooy farata piir mooy farata nañ bokk ci ñi nga xam ne danañ ko bëgg baduñ ko yemaleeg dara ba duñ ko yemaleeg dara waman yuti waman waman yuti illaha fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyiina wassiddiqiina washuhadaa wassaalihiina wa ulaa wa wa xasuna ulaika rafiqa ndeysaan ngeen baal ma yàlla nee na képp koo xam ne topp na ma te topp yonent yàlla muhammad gaa yooyu ñooy gaa yi nga xam ne ñoo am xéewal xéewal nga nga doon ñaan ci alfatiha naan an'amta alayhim gaa yooyu mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal ñoom la yàlla xéewal mu yonent ñi nga xam ne ñoo dëggal ñi nga xam ne ñoo shahid ak gaa ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci ak mbaax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koo war a bëgg ndax mooy yërmande ji nga xam ne moom borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko may waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmande la yërmande joo xam ne saa borom subhaanahu wa taala daf ñu koo may wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nga xam ne dogoon ko nag moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbugal mën nay wàcc ci xeet wi mën nay wàcc ci nit ñi waaye nekk gi mu fi nekk rek tax na borom bi subxanahu wa taala ne rus naa ko ci mbugal leen bi mu fi bàyyi mu ne bu ngeen di jéggulu dootuma leen mbugal sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne nag yërmande la ci yow ku la ñeewante la bil muminina raxuufun raxiim bil muminina raxuufun raxiim Euh, moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku yërëm julit ñi la ku ñeewante nit ñi la te loolu borom bi ci boppam la ko waxoon ndax inna allaha binnaasi la raxuufun rahim yooyu daa bokk ci turi borom bi subxanahu wa taala yàlla ne loolu man dama koo def nit ñi nit ñi moom dama leen a ñeewante nit ñi dama leen a yërëm nit ñi dama leen a yërëm tey nag mu jël ko yakkal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne loolu yonent bi Mhm. Euh, da koo yàllaa da koo yàllaa maanaam da koo moo taxoon mu waxoon ko ne ko fa bi ma rahmatin min allaahi linta lahum waaw arrahma arrahman arrahim yooyu euh, min asmaillahi ta wa min sifatihi daa bokk ci turi borom bi subhaanahu wa waaye bokk ci ay meloom bokk ci ay meloom waaye mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmandi ji bàyyi koo ci man te ma tibbal ci ab cër ba nga jikkoo woo ko moo tax nga mën a doon ki nga doon ndax yëg nga ne loolu mooy sa mission wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku yërëm nit ñi la xam nga ki yërëm ba nga xam ne bu ñëwut woon nga al ko waaye xeet li jaral na ko tegoo coono bu ne boo yëgee yiw wim la indil ni mu toll di ko bëgg ba mu gënal la ñëpp di ko bëgg ba mu gënal la ñëpp te nag suñu borom subhaanahu wa taala bu woon rek yonent bi alayhi salaatu ku yërëm euh, julit ñi la ku leen ñeewante la mu doy sëkk ci ñu war koo bëgg ndax ki la yërëm ñeewante la di la defali xéewal kooku day bëgg ko ak bàyyi ko xel dong moo la war moo tax mu ne bil muminina raufur rahim te moom borom bi subhaanahu wa taala nee na inna allaha binnaasi la raufun rahim yonent bi alayhi salaatu wasalaam yépp ko bëggoon man ngaa wax ne yi amul muy jamaadaat yi sax dañ koo bëgg ëkk yeeg garab yeeg montagne yeeg lu mase jëflantee rek euh, loola bëgg na ko lool waaw bëgg na ko lool nett nañ ci ay xista yu baree bari ci mujizaam ya sallallahu alayhi wa sallam kon nag asamaak yow nit yow mi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala mooñaale na la yëg-yëg moo ñaale la caf-caf ak cafka nga war koo xam nga war koo xam moo tax bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wërta am wërta am yamukaay wërta am yamukaay rabbi innahunna adlalna kathiran min annaasi fa man tabi'ani fa innahu minni wa man adaani fa innaka xafurur rahim loolu la yonent yàlla ibrahima waxoon yonent yàlla ibrahima ba muy wax daa mel ni jëlut engagement waaye yàlla daal ñi topp ñoom ñi ngi nii ñi nga xam ne dañ ma moy it yow yaay baalekat bi sañ ngaa baale sañ ngaa dumaa mu nuroog waxi yonent yàlla Isaa moom daa waxoon borom bi ne ko in tuazibhum fa innahum ibaaduka wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul xakim borom bi subxanahu wa taala yonent yàlla Isaa nee na ko jaam ñi say jaama yaa moom boo leen sa njaboot nga duma boo leen baalee sa sañ-sañ maye na ko ndax kenn du la wax lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom taxawaayam bokkut teg loolu moom lam doon wax mooy allahumma ummati ummati allahu akbar yàlla sama xeet wi sama xeet wi nga xam ne ëfaluñu ëfaluñu bàyyiwu bàyyiñu bàyyiwuñu yàlla bàyyiwuñu suñuy jëf képp bàyyiwuñu suñu jëf képp nga xam ne loolu lay wax allahumma ummati ummati yowmal xiyaam loolu la yonent bi di wax yàlla sama xeet wi sama xeet wi sama xeet wi nga xam ne da koy wax ba mujj gi ndeysaan muy jooy muy jooy ay bëtam tooy xëpp borom bi subxanahu wa taala wax Jibril ne ko yaa Jibril ishab ila Muhammad fa salhu maa yubkiika waaw Jibril demal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga laaj ko lan lay jooy. jibril ñëw alayhi salaam laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko laaj boo xam ne borom bi koy laaj lu moom xam na ko borom bi muy laaj moom xam na ko waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn mbir la am mooy taxawaayu xeetam bi bu leen yàlla mbugal xeetam bi buñ dugg sawara waaye xoolal li ko borom bi subhaanahu wa wax jibril ne ko idhab ila muhammad fa xul inna sa nurdika fi ummatika wala nasuuka waaw waxal yonent yàlla Muhammad ne ko danaa ko bégal ci xeetam bi waaw danaa ko bégal ci xeetam bi danaa ko ci defal lu sedd xolam waaw mooy danaa leen jéggal danaa leen dugal àjjana waaye wax ko ne ko mukk duma duma duma ko def lu ko metti ci ñoom moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne seede ne ne yàlla yàlla seede ne moo ma yónni te mës sa bokkaale dana dugg aljanna waaw bu bàyyee bokkaale rek ma taxaw tinul ko ma taxaw tinul ko kon bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi farata la nañ ko gën a yeesalaat nañ ko gën a yeesalaat ba mu gënal la ñëpp laa yuminu ahadukum ataa xakkuuna ahabu ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain est-ce que bi alayhi salaatu wasalaam nee na ngëmug nit ki du mat lu dul ne daf maa bëgg ba gënal ko ay doomam gënal ko ay wayjuram gënal ko nit ñëpp gënal ko nit ñëpp am na foo xam ne da cay àgg ba ma gënal ko boppam ci xissa bi nga xam ne doon naa la ko nettali ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ki nga xam ne mooy sayyidina umar ibnul xataab radiallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a yey jullit ñi ci seen bopp moo gën a yey jullit ñi ci seen bopp kenn ku ne yonent bi moo la gën a yey ci sa bopp annabiyu awlaa bil muminin min anfusihim waaw moo tax sallallahu alayhi wa sallam mooy kilifa jullit ñëpp kenn ku nekk moo la gën a moo la gën a yey ci sa bopp moo la gën a sañ ci sa bopp moo la gën a sañ ci sa bopp li nga naan maako moom sama alal la ñu ne la ñu ne la yaa moom kay sañ nga cee def loola neex yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la gën a yey ci sa bopp moo la gën a yey ci li nga moom moo la gën a yey ci sa bopp moo la gën a yey ci li nga moom moo tax jaadu na nag nga ñëw nag ne nag nañ ma présenté yonent bi ma xam ko nañ ma ko nañ ma ko nañ ma ko présenté ma xam ko ndax boo ko xamee danga ko bëgg te boo ko bëggee danga texe ndax nee na ñett yii kum nekk ci yow cef ka ngëm yàlla dugg na la mu boole ca bëgg yàlla akub yonentam ba mu gënal la lu dul ñoom waaw nit ki daal bu demee ba bëgg yàlla an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma waaw nga xamante ne bëgg yàlla ak akub yonentam alayhi salaatu wassalaam moo la gën a lépp lu dul moom nee na kooka day mos na cafka ngëm yàlla yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne danañ bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye bëgg nga yóbbuñu ci ñu di ko roy bëgg yóbbuñu ci ñu rafetal suñu taxawaay suñu diggante ak moom ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi bëgg ci ni ngeen di toppe Al Misbah ñoo ngi leen di baalu àq itam te di leen baal di ñaan borom bi subxanahu wa mi yor njéggal yàlla nañu ko boole defal jaajëfal bu baax imaam alxaaji oustaz Alioune Sall mu baax mi di ko ndokkeel ci gàmm gi ak waxtaan yu am solo yi moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk si Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu